a xam dara ci football. Mm-hmm. nga jël ay coupe yu bëri mun nga aay lool doo jël coupe. Mm-hmm. yaa ngi dégg mm-hmm. donc entraîneur dañ koy relativiser. aayam ak ñàkk aayam. mais. entraîneur. liñ si gën a liñ si gën a bëgg. mooy ku am expérience. d' expérience xam nga mooy lan. mooy lan nga am jaar jaar. Mm-hmm. gis nga tey ji entraîneur yi ñu fiy wax yëpp mais dem nañu ay ay ay ay ay club yoo xam ne amuñu fa lu ñu bëggoon mm-hmm. ñu yeewu suba teel dàq leen Ancelotti ñëw na ñu dàq ko mais Ancelotti ñaata yoon la jël championnat ñaata yoon la jël Ligue des champions mm-hmm. yaa ngi dégg ju baax nga jël Hervé Renard nee naa Hervé Renard mu ngi jël coupe du monde euh, coupe d'Afrique ak Zambie si biir équipe Zambie boobu mënoo fa lim ñaari jour yu nit ñi xam ñaari jour mhm. te jël na ak ñoom Coupe d'Afrique c'est-à-dire du ñu ay jour yu ma mais moom moo def li muy def si ñoom ba ñoo ñu jël Coupe d'Afrique mhm. mais ñun Coupe d'Afrique bi ñu jël nii boo gëmoon di leen classé boo bàyyi woon joueurs yi kese ñuy dugal seen bopp dañuy jël Coupe d'Afrique mhm, jël ko jëlaat ko jëlaat ko xanaa xamoo ñun ñun Aliou Cissé ñaata yoon la ñu xañ Coupe d'Afrique andi na fi coupe d' afrique mais daf ñu xañ ay coupe d' afrique yoo xam ne dañ ko waroon jël mhm. depuis longtemps mhm. mais xam nga sénégal dafa am benn période boo xam boo waxee gaa yi dañ lay wax noo noppi man mhm. man man bi Aliou jëlee coupe d' afrique mais ñu bari dañ ma daan woo naan ana li nga doon wax ma ne leen li moo wax démb mooy sama waxu tey xamul dara Aliou Cissé mosul diriger benn club Aliou Cissé euh, sénégalais yi ñoo dem Jeux olympiques. ah mu dem ak euh, entraîneur boo nga xam ne fàtte naa turam dem si yàlla kooku mooy mag yaa ngi dégg toog si banc bi di jàng di def tactiquement moom mu taxaw di yuuxu ñu dem am fa jaloore gars yi mhm. jël affaire bi jox ko ko ne moom moo ko moom moo fa am jaloore. Mhm. te amul benn jaloore. yaa ngi dégg di léegi teroog fii mi temps nee leen. li ma xool si coachingu ñaari kii. Mhm. Aliou Cissé première minute ba dernière minute dafa taxaw di yuux moom dafa mel ni dafa bëgg caméra yi di ko. day stressé rek duudu Van mhm. mu toog jógu fa. Van Gaal. Mhm. entraîneur Hollande bi ñu gagné deux heures fi mu toog jógu fa. bigam la yore ak fëyam di noté yenn saa yi mu tourné. jógul benn yoon. parce que boo entraîné sa say stratégie. xam nga Aliou Cissé dafa mel ni ku yore école football. xam nga école football. Mm-hmm. ngay jël xale yi di replacer. eh taxawal fii mais Aliou Cissé ku paas kuy paas sax moom moo lay wax kan nga war a paas. Mm-hmm. mais loolu du entraîneur. entraîneur da ngay bàyyi football gars yi football ak seen xel mais Aliou Cissé première bi moom kañ lay jàng match. match boo ko bëggee jàng da ngay toog sa banc. Mm-hmm. nga jàng. mais yow da ngay yuuxu première minute ba dernière minute gis nga dinaa la xamal benn affaire. Hmm? waaw. Euh, xam nga waxoon naa la tiit naa lool ci Hollande mm-hmm, mm-hmm. ndax moo ñu mën fuuf hmm? mm-hmm. yéen sénégalais yi nag da ngeen jàpp ñaari match yi di ñëw nii c'est réglé noonu ngeen yaakaar kon dangaa jàpp ne vendredi incha allah dañ ñëw nar a gañewaat noo wax ma dañ gañe de mais du yomb ndax yaakaar nga Sénégal war na mën a gañe noo du yomb du yomb xam nga yow ñun suñu objectif bu mag xam nga ma dégg président ak ay supporters yu bëri naan jël coupe du monde ñun ren xam nga léegi boo ko waxee sax ñu ne li ñu Hollande dóor la mais ñun ren suñu exploit mooy génn pour hmm. ñu génnee pour hmm. doy na ah waaw doy na lu tax nga wax ko Doudou yow tamit waaw mais parce que amuñu équipe boobu hmm. xam nga xam nga dañoo amul équipe boobu xam nga fii laa la wax keroog mën na la di nekkul ci dara mën na leen Kalidou Koulibaly nekkul ci dara ma wax la ma ne la suñu yeneen joueurs yi milieu terrain bi attaque bi. Mhm. kenn nekkul si dara Bamba Bamba Dieng ba ngay yaakaar. Mhm. ay bout de match luy joué. Marseille. Mhm. bu ñu demee ba mu des ay quinze minutes dix minutes lañ koy jël dugal ko ne ñooñu nekkuñu si ay conditions performance pour gagner yenn match yi. xam nga lii du Coupe d'Afrique. Coupe d'Afrique da ngay gën a muus nit ki gagner ko. fee koo munul da dama laaj Australie dem mënewul France bi 1 mais bu football taxawee bu foobal taxawee gisuñu sax français yi dañuy toog ba si di dem di for yi seen camp coupe du monde moom ak ligue des champions ñooy nekk affaire boo xam ni amul mm-hmm. foo logique moo siy am mm-hmm. est-ce que du absence Sadio Mané tamit moo waral kii ndax Sénégal dafa mel ni dañoo même Sadio Mané bu mm-hmm. fi nekkoon Sadio Mané kese mun na porter équipe xam nga gars yi occasion duud yi ñu am yëpp ndax yaakaaroon bu Sadio Mané nekkoon nañ ko ma ne déggoo yéen xam nga Sadio Mané na dellu si waat wala Sadio Mané moom bu mu fi nekkee match yëpp victoire la woon mais bàyyi leen di wax Sadio Mané mënul jël équipe bi yëpp yenu ko suñu joueurs yi xawma ma qu'est-ce qui s'est passé mais entre coupe d'Afrique beeg coupe du monde bi il s'est passé quelque chose ñoom ñëpp nekkatuñu si dara. Kalidou Koulibaly tamit nar a absenté euh, ci match bi ñu jëm si. waaw ku nekk mun na absenté bu fekkoon ñu remplacer ko su fekkoon ñun ñu ngi si dara. Mm-hmm. déggoo ñun actuellement suñu jour yi. Cheikhou Kouyaté autant pour moi. non dañu nekk ci be dañu nekk ci méforme dañoo nekk ci méforme bu graaw. Mhm. bu ñu amoon nag entraîneur bu mag. Mhm. mot entraîneur am na ñu ñoo xam ne ñu ngi ci liste bi waruñu woon dem xam nga fii yéen da ngeen di jël nit rek def ko fii fii Sénégal. Mhm. dañuy jël nit def ko yàlla. mais Kalidou Koulibaly ak match bi mu def bii passé. bu doon am nañ entraîneur match bii du ñëw du Hmm. xam loolu boo ko waxee Sénégalais yi nag du joué nga jël Mendy teg ko ci banc bi. Hmm. beneen góol parce que nekkul ci dara da ngay def choc psychologique mais xoolal même classement bi ñëwaat. Hmm. parce que xam nga joueur soo ko nee yow poste bi yaa ko moom kii nekkul Chelsea Koulibaly ñaata milliards lañ ko jëndee te léegi du chaque jour lay joué Mendy jëluñu ko teg ko ci banc parce que tubaab dafa dafay jàpp ni. personne n'est indispensable mhm. soo nekkul ci forme keneen mooy nekk ci forme de mhm, sa mhm. place ñu teg la dans une situation de concurrence mais yow bu ñu la tegee fii ne la yow yaa fi dàq animé yow chaque jour yaay animé te kenn du la tiital da ngay toog ba si yàgg dootoo animé ci dara mais boo toogee ba si yàgg gis beneen xale bu xees comme yow ah dooj ñëw commencé def boo defee tey suba mu def di nga gën a yokk li nga doon def loolu mooy àdduna compétition la il faut de la mais la concurrence saine mais yow nga am même même même onze de départ kenn du si génn yow kii euh, nu mu tudd dafa nekk si dara. pourtant gànn joué na match mondial mais yow yow man xam nga mënu ma waxtaan ak yow football. <laughs> non nekkul ci dara. nekkul ci dara dara nekkul ci. nekkul hmm. ci dara. boo amoon bu nekkoon beneen beneen dëkk ak beneen coach ba day bon. léegi suñu diggante ak Qatar vendredi bii ñuy jëm si lan ngay conseillé kii de Aliou Cissé pour ñu mën na sax au moins gagné Qatar. non du ma déglu ma ma conseil bu mu ko jox. lan yow lan nga xalaatoon ko moom lépp. lan xalaatoon. nee na mooy patron. waaw <laughs> ah, mais mooy patron yooyu. ah waaw d' accord bi jëla mais sénégalais nga am nga sa sa mot à dégluwul la mhm. nee na kenn. affaire yi moom moo ko moom. nee changement maa ko moom. kon kañ moom moom équipe waaw <laughs> ah, léegi kenn nee na kenn du ko wax comme muy changé ak ka mu dul changé moo ko wax. mais xam nga Doudou dafa neex si xool nga daan coupe du monde daan am ngay ngay ngay ngay faral ay France di faral ñeneen ak ñeneen ren nag euh, Sénégal Sénégal yàlla def mu bokk ci donc fierté la ci ñun sénégalais ñi supporté li nga xamante ne mooy Sénégal donc yow tey jii boo doon wax lan mooy classement bi lan ngay lan nga fiy wax tey. man du ma wax dara si classement bi borom patron bi. Hmm. bi el tactico. nee na moom moom classement. Ah. mais xanaa du ma wax di sànni sama wax.